Digo jaajëfal bu baax a baax dem mbégte ak contentement di janoog yéen chaque jour comme ni ñu koy defee ah jotaay lamb la ñuy dem waaye actualité lamb la ñuy topp combat bu mag bi nga xam ne le 20 mars ni ne la da ko jagleel jigéen ñi loolu doyul mu teg ñaari mbër yu mag Fils de Balla Gora Sock combat boobu kenn ko natable ñu ne déeta waaye mu daal ci teg beneen combat combat spécial boo xam ne dafa neex ba jéggi day amateur bëgg ko ñu ne kan la taxawal Ronaldinho ñu ne kan la ko boole ñu ne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 ay jaajëfal ko bu baax mën naa ne moins d'une semaine ci combat am naka nga koy waajalee fu mu ne nii. waaw soxna Mbacke fu mu toll nii moom yaakaar naa leneen lu ñuy waaj ah, lu dul pare la ñuy wax waaw dañ ñoo fekk ci dernier réglage yi nga xamante ne carrément ci lañ nekk mais sant yàlla rek di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci jàmm may ñun ndam ci kaw Ronaldinho. Mm-hmm. Ah. est-ce que xam nga Ronaldinho bu baax. waaw Ronaldinho xam naa ko ah, ci xamu lamb nii mm-hmm. waaw xamu làmb. xamu làmb nii est-ce que du risque ngay bëri mbër mbër adversaire nga ne xam nga ko ci xam-xamu làmb nii. non du risque parce que des fois nga dem bëri ji mbapat te doo doo xamante kenn nga bëri lu lu toll dix combats. jël làmb ji kon yaakaar naa benn combat wala ak ki nga xamante ne xam nga ko wala xamoo ko yooyu du la du la du la empêché ci dara ci li nga war a def quoi. Mhm. nañ jël waxtaan bi kaaw teg ko ci table bi. lu simple nga wax yow da ngay dem wëri moom muy dem wëri du la xam doo ko xam. Mhm. bokk la lutte avec frappe nga xam ne jël 2 mois wala 3 mois di waajal benn combat moom mu nekk ak ay mbokkam di la rëbb yow nga nekk ak say mbokk di ko di ko rëbb. est-ce que bañ koo xam wóor na. waaw loolu li ma la wax rek loolu moom du risque parce que man yaakaar naa bëri naa ci sama carrière naa ci cinq combats yi nga xamante ne ma gis sama adversaire mhm. biir la ja laay xamee sama adversaire kon mhm. yaakaar naa ni ki nga xamante ne yaa ngi koy gis wala boo tapee turam gis ko ci internet yi mhm. kooku yaakaar naa du du doon la nga xamante ne problème la quoi pour man ci question boobu laa des ba léegi ñi gis mbër buy bëri adversaire am day dem koñam dem bërëbam xam ko ràññee ko di xool lu bëri ci moom yow nga ne tekki tekkaar lan moo waral lool. waaw non man moom li ma ñor mooy le leneen ñor ma la vingt moom ma ñor ma ànd ceeg ña nga xamante ne ñoom laa war a àndal muy waa école de lutte fi mu ma fekk fi mhm. loolu donc moom ñor leneen ñor ma. taxaloon combat métti woon na. moom méttiwul parce que ñaar ñaari ndaanaan ñaari ndaanaan boo leen di daj boo leen di boole du métti quoi. Mhm. méttiwul moom. Ronaldinho jël la mu nekk combat nga ne bu métti la waaye ascenseur la pour nga xam ne mooy Kaaw Gourdin ndax nga gisee loolu. non man sama sama làmb soog ba léegi gars yi ko de. <laughs> dégg nga. Ah. nee ndox bi daa bëgg a jéggi pax. Ah. lan mooy sa làmb soog. non du lii maanaam làmb coow bu tax ñuy wax làmb coow dëgg-dëgg mm. yegg see guñ ci. ci defet ci victoire la jógee de. waaw man macha allah. moom laa war a seet ci victoire la jógee. fu mu ah, ne nii nee macha allah. yow macha allah ça veut dire lan ah. macha ah, allah ci li ma jóge mbaa du mm, remontada remontada moo moo la yey fu mu nekk nii. non du question loolu sax ñun moom wax dëgg yàlla daan yankaaw. waaw ah. daan xale bi nga xam moo ñëw nekk phénomène toj làmb ji fis. Euh, caatu Daado Fall caatu Daado <laughs> naa ko fils de balle fils de balle yaa ma sonal caatu Daado Fall ñëw ci làmb ji dugg ci tournoi bi gën cee tuuti gën ci nekk xale waaye toj ko jommal ñëpp final bi ñu boole Kaw Gourdin caatu Daado ñu ne caatu Daado maanaam ascenseur sax la ngay nekk da lay ñëw jéggi jàll ndax combat bi war naa nekk lu gën a yomb ci ko bi ah. nga daan ko est-ce du loolu moo la may fit yooyu noonu non man moom même bu nekk woon kalaaf bi sax man saison laay entraîné mhm. bu may entraîné saison nag comme ni ma koy waxee rek damay entraîné rek ba keroog saison bi di jeex mhm. parce que ci loolu lañ ma yaree ci loolu lañ ma tàggatee ba ma tool nii mm-hmm. a dëgg yàlla mm-hmm. même bu ñu génnee ci Ronaldinho dañuy dem xooliwaat leneen la nga xamante ne moo nekk sunu kanam mm-hmm. waaw nekk ci entraînement yi non bu baax du ñu bàyyi dara fii ak saison bi tëjul moom ñun duñu noppaleeku ci préparation ñaar séance d'entraînement nga doon def comme ni ma daan def rek trois séances laa doon laay def ba nii nii trois séances laay def parce que saison bi jeexagul ba nii ni nii nii trois séances ma bu gën a jege rek dañuy wàññi séance yi. non non di def di noppalu bu ñu doon wàññi tey boo ñu fekkee fii da ñuy fekk ñuy def délassement wala leneen rek leneen mm. mais da ñu fekk ci la nga xamante ne mooy moom la ñuy def chaque jour. Mm-hmm. waaw combat bi looy yokk bëre bi wala xeex bi lan nga indi fan si. combat bi <laughs> combat bi dañuy yokk lépp rek lépp la ñuy yokk parce que ki ñuy dajal ndaanaan la wax dëgg yàlla te ci bëre lañ ko xamee te bu ma sañoon maa moom dañuy bëre waaw mm-hmm. gisoo ci xeex non non bëgguma ci xeex sax man maa ko ci bëggul parce que dañoo gis tey suba ci journal bi ñu nekk nga xam mooy Kaw ne mooy adversaire am lan da ngay pare lépp mm-hmm. li ngay bëgg nag da nga koy boo fa demee boo fekkul li nga bëgg mm-hmm. après yow li nga xamante ne moom nga liggéey moom ngay wonewaat foofu rek ñi gis attraction yi am ci diggante ñaari adversaire muy métti trop seen diggante yaa euh, sa adversaire est ab loolu am na ci diggante non non parce que Ronaldinho wax dëgg même bu dul combat bi dañ daan nañ daje ci làmb mu may ñaanal ma am ndam. ba ci tournoi bi ma jógee. man tamit maa ngi ko doon ñaanal combat yu ñu daje yu yu mu am yëpp maa ngi ko ci doon ñaanal mu am ndam. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mu nekk borom baax ku baax la wax dëgg yàlla parce que dañoo bokk dañoo bokk kër gi ñu jógee. Mm-hmm. muy Tivaouane dañoo bokk foofu. Mm-hmm. kon tamit cër laa koy jox mais ba bi sifflé moom ñu nanguwaat cër. da nga koy ñaanal mu ñaanal la wala day na ñaanalante. comme na yéen ñaanalante. est-ce que non instant yii moom moo may ñaanal yal na ñaan bi nangu ñaan bi ma daan ñaanal yal na nangu. moom moom moo lay ñaanal. waaw li mu bëgg la bar bëgg di. non instant yii bar bi ko gën a soxla de <laughs> bar bi da koo gën a soxla. ay kaagu de bi ba ban slogan nga koy indi da nga daa indi bii nu mu tudd. acca acca bi <laughs> ban nga koy indi. wala boobu ngeen bàyyi ba léegi. bi bi bi seen daw moo ñëw. <laughs> seen daw moo ñëw. acca bi da lay bay acca. acca demal ñibbi waaw nam nga lu trop rawatina dimanche bi passé fi ma toog laa toog wax dëgg yàlla ma am lu ma métti. Mm. mais tamit loolu la sunu borom dogal. Mm-hmm. waaw ñuy waaj nag ñoo ngi waaj. Mm-hmm. bu ñu génnee ci lii rek yàlla suturaal ñu may ñu ndam ci kaw Ronaldinho mm-hmm. dañuy wàcc si waat. ba tey ci moom laay desandi. ñu gis mën naa ne sa combat bi passé la final bi. nombre nit fa ñëw supporter ni ñu mobiliser woo xale def sañ bu ma mës a gis indi aada ak cosaan <laughs> lan moo waraloo sa waaw ñooñu saala saalay la ñooñu saala saalay la mafia njaga bi mhm. ñooñu amuñ seen fay mhm. saala saalay ak mafia njaga bi ñooñu amuñ seen fay mhm. te incha allah le 20 dimanche di ngeen gars yi dañuy gis lu gën a garaaw loolu lan moo waral coutume bi ñu ñëw ëllëg ñii dañuy def tik ñii sol ay t-shirt ñoom ñu ñëw indi aada ak lan moo waral loolu complicité la wala loolu leen parce que parce que Dalifort fii loolu moo fi am lu waay xewle. ñëpp a ciy jàpp. Mhm. rawatina ci ak xeet boo mënti doon nag. Mhm. dañ ciy jàpp taxawu la ci. Mhm. wax dëgg yàlla. ñu ciy lancé appel tamit ki nga xamante ne mooy sunu musala maire muy Baye Baye mu ñëw jàpp ci bu baax ak sunu sunu muy awaña moom tam mu ñëw jàpp ci jënd ci billet yi. booy mën a dem parce que dimanche warul yomb. incha allah. ayca promoteur boobu jam production moo ko mais bu ma waxee moo ci combat bi damay dugg ci en tant que lutteur. nga gis ñu gis làmb yi léegi fi muy jeex mën naa sa làmb VIP yi avertissement lay jeexee wala mbër bi du ñëw wala dafa blessé yow na nga ko gisee loolu waaw parce que làmb moom lépp moo ci am victoire la défaite machine mm-hmm. waaw ak sans verdict bi nga xamante ne arbitre moo la koy jox mm-hmm. mais bu ci ñëw da da ngay da ngay sant yàlla mais victoire moom nga wëlbeeg daan gañ dara daaxu ko mm-hmm. te ñoo ngi koy ñaan wax ñun moom duñu masinil ci kàttanu yàlla parce que xam naa ki dajal <laughs> nee du masinil waaye mbër la te mbër buy dem day waajal ànd ay mbokkam ànd ay supporteram ñi gis mbër yi suñu daanee du ma ne sax mbër yëpp mais yenn mbër yi bu ñu daanee seen supporter yàq bu ñu daanee seen mm-hmm. supporter yàq te léegi dañoo seen dafa jël ndogal ne supporter lu ñu yàq rek ci ndoddu mbër bi lay dal en tant que mbër lan ngay wax avant ngay wax dara say supporter waa loolu moom dañ ciy dañ dañ ciy masaw ña nga xamante ne ñoom lañ ciy sanctionné mm-hmm. ñaaxaat tam ñi nga xamante ne ñooy ànd ak mbër yi rawatina supporter yi fan si kële bi mhm. nañ gën a ànd ak dal ànd yar mhm. parce que làmb sport kese la mhm. parce que buñ ko xoolee ñun mbër yi bu lamb ji jeexee ñooy bokkaat nday ñooy bokkaat baay ñooy àndaat xam nga nekkaat ci bu kenn xew lee keneen ki day demal moromam kon tamit na supporter yi xoolee noonu xam ne tamit benn tàkkusaan la rek waaw discipline bi gën a ñëw ko waaw yar bi gën a yokkaat ci doomu aadama yëpp quoi ban sensibilisation ngay jox say supporters. non samay supporters ñoom xam nañ Kaaw Gourdin parce que Kaaw Gourdin même bu dul dara même bu dul dara boo ko fekkee mu toog du xool nit ay supporters am tamit noonu lañ mel. Mhm. mosuñu ñëw stade ba déborder ci dara te dañuy ñaan yàlla tamit loolu noonu jëm kaw wax dëgg yàlla. Mhm. ñu leen ciy ñaax nag bu baax a baax ñu ànd ak yar ak teggin mhm. incha allah dimanche incha allah ñu dem wàccee waaji ci kàttanu yàlla ñeme ko wàccee kan koy wàccee. Ronaldinho Mansour. non Alioune Badara kan ngay wàccee. non Ronaldinho la Ronaldinho. da nga bëgg a wàccee dañ ko naan tëpp mu dal ko ba pare ñu ne ko acca <laughs> dama ñibbi ba pare lu muy séen rek day daaw. ah lu dox loolu. waaw kaaw bi lay gis wala gurne bi. non tóoro bi lay gis. <laughs> Toro Dalifor bi lay jàkkaarloo lan ngay wax sa adversaire balaa ngay tàggatoo. waaw sama di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wër. yàlla andi ko jàmm ci làmb ji wax dëgg yàlla may ñu ndam ci kawam. Mhm. lan ngay wax ñoom ñu teel a dem rek teel a dem waaw teel a toog fi nga ne fa la ñu war a toog mhm. di naan café di naan boisson di lekk banana. te xam ne indi leen fruit bi waaw te xam <laughs> ne waaw <laughs> ay sa yooyu fruit bi. <laughs> fruit ñu ko moom. dal waaye Fama fruit bi man damay dal. <laughs> fruit bi waaw sant yàlla bu baax soxna Mbacke waaw di am contentement bu baax. Mhm. ci jàkkaarloo site bii nii muy Leewtoo rawatina yow mi nga xamante ne xam nga mooy loolu ba ñu xamante ba léegi. Mhm. yàqoo ci dara. Mhm. buñ déggante yak ngi may bu baax ci li nga xamante ne mooy làmb kon tamit ñoo ngi lay jaajëfal. dina ñaanal yàlla bonne continuation quoi. waaw ci job bi yaa ma gën a xam. di santaat yàlla bu baax. rawatina fi ma fi ma muy Dalifort fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee rawatina ci école de lutte bi fii laa jàngee bëre fii laa jàngee lépp lépp lu ma mën ci suuf bi laa ko mënee wax dëgg yàlla di sant père Tombe bu baax ak ñu mu àndal ñëpp ñoom père Babou père Modou père Modou Diop président ñoo koy sant bu baax a baax ak ñu mu ñëpp ak école de lutte bi mbër yi fi nekk yëpp ñoo ngi ñoom Jal Diop ñoom Séni xam ñoom Kayre Junior ñoom Baobab di sant yàlla nag bu baax a baax di sant Dalifor Foraay bi di leen woo tam ci combat bi ñu jëm mhm. rawatina Maris Yaraax Daaru Salaam Seras Daral Balbader ñoo ngi leen di woo bu baax te assurance mhm. cité posu ñoo ngi leen di woo bu baax di woo Cambrel waa parcelle ñoo ngi leen di woo bu baax a baax waa kambureel waa Géejawaay ñoo ngi leen di woo ma mhm. mafia roof tàngoor bi maa ngi leen di woo bu baax ñu ñëw ci waaw yaa ma gën a xam ci làmb ji mafia saala saala bi mm. duñ leen fàtte mm. ña nga xamante ne mooy mooy ñan kalamanaas sama gaay <laughs> waa kalamanaas ñoo ngi leen di xaar bu baax waa mbartal ma waa rëbb ñoo ngi leen di xaar bu baax njaga famille bi ñoo ngi leen di xaar bu baax a baax di woo ña nga xam ne ñooy diaspora bi di woo ñëpp rawatina waa waa France maa ngi leen di woo ñoom ayda maa ngi leen di woo ñoom Ousmane Kempes maa ngi leen di woo ñoom Suwaadu maa leen di woo bu baax ñoom Jif Koso maa ngi leen di woo bu baax daa Thier bëggu fàllu Cheikh Sarr Xaadim Garachas maa ngi lay woo bu baax waa waa fële waay kaaw uy ma kaaw États-Unis <laughs> asu maa ngi lay woo bu baax nga ñëw jàpp ci combat bi yaa ma gën a xam waaw diaspora bi bàyyiwuñu feen waa Arabie Saoudite tam ñoo ngi leen di woo waa Mauritanie maa ngi leen di woo waa Maroc waa Turquie sama gars yi fa nekk yëpp maa ngi leen di woo gëstu xam-xamu làmb tamit maa ngi leen di woo bu baax ñu ñëw jàpp ci mhm. axlu làmb maa ngi woo ñoom tam ñu ñëw jàpp ci mafia ba nga xamante ne mooy loolu noonu laalaaka bi mafia laalaaka bi maa ngi leen di woo bu baax a baax rawatina axlu làmb maa ngi leen di woo ngeen ñëw jàpp ci bu baax waa yëmbal maa ngi leen di woo bu baax ñu ñëw jàpp ci tëngéej sama famille bu fa maa ngi leen di woo ñoom tam ñu ñëw jàpp ci combat bi bu baax a baax rawatina rawatina waa tëngéej foofu kaar mu ngi foofu toog di xaar lu leer laa lay wax waa Tëngéej maa ngi leen di woo bu baax ñu ñëw jàpp ci waa Passy maa ngi leen di woo waa Kaarang maa ngi leen di woo waa Amna maa ngi leen di woo ci combat bi ñu ñëw rek yow woo Sénégal gi yëpp noo woo àdduna bi yëpp waa Guinée maa ngi leen di woo sama mbokk <laughs> yi maa ngi leen di woo noo Russie duñ ñëw <laughs> woon waa ñëw <laughs> bàyyi waa ñi nga xam ne mooy waa Jaxaaw maa ngi leen di waa Boof maa ngi leen di woo bu baax ñu ñëw jàpp ci waa Njaay Njaay maa ngi di woo waa Fatick waa Nguy Alioune Sylla maa ngi leen di woo waa Caajaay fàtte wuñ ñoom tamit ñu ñëw jàpp ci bu baax rawatina sunu musala muy muy Omar Youm Omar Youm ñoo ngi koy woo mu ñëw jàpp ci xam nga na ci jàpp bu baax maire de Caajaay maa ngi koy woo bu baax mu ñëw jàpp ci ñu koy teg ci loxo Ousseynou ak Assane ñoom nañ ci ñëw rawatina waa Mbour sama gars yi fa nekk Baye Zal. Kaaw doo waa Sénégal doo wóor waa Sénégal. yow xam nga maa yow. ok mooy loolu. waaw yaa ma gën a maasu daggal ma rek yow daggal ma yow fu mu gën a gàttee eh, daggal ma maasu maasu sama waay la. <laughs> kon baax na demoon sama waay la <laughs> waa Mbour maa ngi leen di woo rawatina ñaar borom ñaari paaka itam maa ngi koy woo bu baax. Mhm. lamb ji lambam la. Mhm. waaw lépp lu mu ci mën daal na ko ci def. Mhm. waa cinquante waa kees maa ngi leen di woo bu baax a baax. di woo monde entier rawatina képp kuy bëggee Kaaw Gourdin rawatina Moussa Ndoye sama grand maa ngi lay woo bu baax nga ñëw jàpp ci saa kees nga jàpp ci combat bi. saa kees man saa kees. saa kees man mbër wala waaw. moom sama <laughs> waay la saa kees mbër. sama waay la. ok papi maa ngi la woo guy gi rëg dañ koy wër mu la jàppale. ok na dem maa ngi lay woo nga ñëw jàpp ci waaye yaraax nag maa ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn rawatina looso. Hmm. maa ngi lay woo bu baax Serigne Ndour maa ngi lay woo ci combat bi. di bëggee école de lutte Dalifor bi yëpp bàyyiwuma kenn nag. Hmm. école de lutte Dalifor maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñoom combat amee ndam. Hmm. Siré borom Seras maa ngi koy woo. Siré borom Seras waaw moom moo ñuy jox yàpp yu baax woo ko ndax man damaa war a dem Seras damaa nam Seras ko moom woo ko <laughs> waaw noonu la demee maa ngi <laughs> biri del waaw ñoo ngi lay woo ci combat bi nga ñëw jàpp ci mm-hmm. waaw di am contentement nag bu baax a baax a baax a baax soxna Mbacke kontaan naa trop rawatina nga ñëw fii nga xamante ne fii fii laa jàngee lépp waaw lii artivour la dama bëgg nga téye ko <laughs> waaw di bëggee tam directrice bi nga xamante ne moo ñu jox école bi ñu ciy entraîné wax dëgg yàlla ñoo ngi koy bëggee di ko ziar bu baax rawatina sunu grand bee taxaw fee Médoune ak famem ñëpp ñoo ngi leen di ziar ñoom xam nga mooy loolu quoi di ziar ñëpp nag di di wax di ñaanal jamaïcain journée bi yàlla na ko ci yàlla defal jàmm quoi maam ci réussite total papa Diak maa ngi lay woo bu baax ci làmb ja ah. waaw di la bëggee di jaar ak ngërëm waaw ñeel na ki ñi nga woo ñëpp bu ñu ñëwee dama ne combat mag bi duñu duñu duñu duñu place Aïcha <laughs> dama koy bëggee bu baax a baax moom Kaaw Gourdin nekk nit ku baax ku oyof macha allah lu ne laa koy def lu ne laa koy wax waaye teewul juróom la gën a mën a kaf juróom la gën a mën a ree macha allah di ko bëggee bu baax a baax ko jàmm ak salaam combat ba nag kala meer gañ bu ma kenn yóbbu. doo ma ñaanal. nag kala meer gañ damay bëggee nga xam ne ñoo jàpp sama mbagg yi Fama Dramé soose wala séeréer ah tukulóor bëgg naa ci yow bu baax a baax a baax a baax. di marhaban sok marhaban sok waaw maa ngi koy bëggee marxaman soog moom yaa ma gën a xam signature yi may dem yëpp moo may jox lépp lu may sol wax dëgg yàlla marxaman soog ah ndax na may sañseel waaw loolu du problème da nga fay ñëw ñu def plateau mu def loolu la ñuy def yow bëree ba pare rek yow allah <laughs> ñaanal man yow que le meilleur gagne ay ca Fama Dramé ah. damay bëgg amal jàmm ju bëree bëri sama kaman wu mën bi sama jigéen ju mën góor bi jàmm ci yow laa ñaanal ah Aline Badara sama lébu bi borom tëltël yi indi ma tëltël yi ma togg ci ceeb bu neex ah jox gars yi di lekk yaa ma gën a xam di bëggee waa Leewtoo TV yëpp ah Leewtoo production leen jaajëfal bu baax a baax waaye jaajëfal bi nga xam te ne mooy moo maane Modou maane ah sama faaw <laughs> baax bu ma saboté waaye Modou maane dama koy jaajëfal bu baax ah sama soose bi kenn du yow kenn du yow peace and love li nga bëgg yaa xam yàlla na la ko yàlla defal ayca jox leen dig beneen yoon ak beneen mbër ci beneen jotaay lamb ci beneen koñ jaajëf